Maître Massokhna Kane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. am nañu euh, mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi tey yow yaay njiital SOS euh, consommateur alors euh, maître gis nañu fan yi ñenn ñi sax daanaka weer wala lu teg ñu ngi koy dund ay jafe-jafe ngir am ndox ndax yéen SOS consommateur am nga ay ñaxtu yu ngeen jot jëm ci wàllu woowu. waaw jot nañu ay ñaxtu yu bare yu jógee ci population yi muy waa Dakar wala banlieue wala ci àll bi. surtout waa àll bi euh, donc affaire ndox euh, lu ñu war a gaaw a seet la euh, ndax boo jëlee Ndakaaru et sa banlieue xam ni seen eau ñoom ñoo ñoo ko war a ñoo war a yor loolu gis nañu am nañu série ay communiqué yu bare yoo xam ne communiqué yu jóge ci Sen'Eau ak communiqué yoo xam ni ne Sen'Eau ak Senelec ñoo ko defandoo di wax ay perturbation ci réseau bi loolu depuis lu mat depuis mois de janvier ba léegi donc euh, dañu yaakaar ne euh, bu ñu dindee fii SDE teg seen euh, dañ ko def pour ñu pour mu am amélioration maanaam pour que ndox bi ñu gën a am qualité ndox bu baax gën a am aussi régularité ndox bu baax mais dafa mel ni la ñu amoon ca SDE amuñu sax loolu ak Sen'Eau ak fermier bu bees bi muy euh, Suez loolu dañ koy naxarlu lu ñu constaté la te dañ koy naxarlu parce que dañuy yaakaaroon ni euh, ki fi defoon euh, plus de vingt cinq ans muy SDE buñ ko fi jëlee lu gën a baax mooy am or lu gën a bon moo am donc loolu dañuy wax autorité yi ñu gaaw ci jóg te dañuy parce que tout le temps ñu ngi def ay ay communiqué di di di di ci askan wi ak di ñu proposer ay camion ndox nit ñi fay ñoon abonnement pour ñu leen di jox ay camion ndox yoo xam ni camions yi da nga leen di seen camions yi amul benn hygiène et cetera loolu population yi d'accord ci te dañuy interpeller ministre de tutelle ministre de tutelle bi ministre euh, Mbaye Thiam xam ne ministre la boo xam ne tàmm na monter au front ñëw tontu euh, population yi bu ñu ko interpeller tontu publiquement à travers la presse euh, wax nit ñi dégg ñun loolu la ñuy xaar ci ministre bi dañu bëgg mu ñëw wax ñu réellement lan moo am quels sont les problèmes qui font que euh, ndox bi population yi mënuñ ci jot régulièrement mm. dañu def di loo xam ne ni dépassé na Sen'Eau parce que Sen'Eau du wax ak ak askan wi li nga xam ne moom la SDE daan def régulièrement di woote ay ndaje di ñu expliquer loolu fekk ci Sen'Eau Sen'Eau bi mu fi nekkee ba léegi woowul association de consommateurs yi benn yoon pour expliquer leen situation wala recueillir seen i ñaxtu walla seen i avis loolu amul hmm. donc ministre bi la ñuy pour mu wax ñu réellement problème mu distribution ndox bi lan moo ko war wax nañu ne dafa am euh, xëy na ñàkk mat ci production bi yow loolu noo ko comprendre maître waaw loolu dégg nañ ko am na ay fam euh, ñu ne que euh, dafa production bi moo moo moo moo doyul waaw waaw mais télé lay wane télé dëggantaan parce que ñëpp xam nañ ni si ndox bi am na ay ay programme yu bare yoo xam ne ay milliers de milliards la ah euh, projet Grand Eau projet du millénaire et cetera ay mille milliards ak bare ñun yàgg nañu wax nañu auditer affaire ndox parce que liñ ci def ci xaalis kenn xamul nu mu toll te ba léegi dafay gën di bon il est vrai que la demande dafay gën a bare mais loolu prévision la c'était prévisible loolu lañ doon ñaan que ñëpp mun a am ndox donc bu fekkee Dakar ak banlieue bi rek déjà euh, fermier bi fi indi dafa tële pour régler problème boobu état du Sénégal tële pour régler problème boobu mais population yi fu ñu jëm parce que ndox du marchandise bu ñuy jaay ndox droit la droit de l'homme la ndox même boo amul xaalis war nañ la jox ndox dañu am devoir jox la ndox waxantuma laa bu fekkee dangay ngay fay abonnement ba pare journée bi doo xam ndox ñu lay proposer ay camion citerne camion citerne pour lan est-ce que mën nañ dëkk ci di wax ni ñi ay camion citerne c'est pas possible tële daal lañ fi gis te dafa jot euh, autorités yi audité affaire bi xool lan moo tax population yi mënuñu am ndox hmm. population rurale yi ñoo ci gën a sonn encore hmm. non seulement on les a livrés à des euh, concessionnaires yoo xam ni contrôle bi ci war amul mais ñoom ndox bi ni ñu koy fay parfois moo gën a cher waa Dakar li ñuy fay yow nga nekk ci village yi gën a sore. te taxul nga gën a néew doole amuloo xaalis ñu lay fayee ko ndox lu gën a cher waa Dakar li ñuy fay loolu aussi problème bu rëy la. te ñoom fu mu toll ñu ngi ñaxtu. loolu nag affaire bu grave la bi ci mujj mooy affaire u Kafountine bi donc euh, euh, vraiment il faut que état ay solutions yu urgente pour loolu. ndax yéen SOS consommateur xalaat ngeen dem ci yoon ak seen o xëy na ngir ñoo jubbantiku wala mbir mi saafara wu daal. waaw pour le moment ñun enquête la ñuy def ñu ngi enquête di wut ay éléments. mais population bi seen bopp ñu ñoo war a ñëw organiser wu ci association de consommateurs yi pour dooleel leen parce que population yi bu ñu ñëwul ñun du ñu am doole mën nañu def quelques actions en justice même hmm. il faut que population yi ñëw bokk ci parce que ñoom ñooy loru ci affaire hmm. donc ñun dañuy woo population yi pour ñu ñëw adhérer ci association de consommateurs yi bu ñu dara nañu ñëw parce que mbooloo mooy doole. Hmm. loolu moo tax ñu wax la. mais yow mënuñu la xeexal ba pare yow nga toog fële di seetaan di tàccu. wala ngay ngay seetaan mel ni yow xeex bi moom alors que xeex bi sa xeex la. ginnaaw ndox mi euh, maître ñu wax ci courant bi euh, surtout ci ndaje mi am tey ji ci ngoon ci altine ji euh, dox diggante Akilee ak ay kilifa bokk na ci waa Senelec ak agent judiciaire de l'État ñu war a xamal Akilee li nguur gi décidé à travers président de la République mooy xëy na jëndaat ay paaram waaye itam du ñàkk dakkal contrat bi yéen lan ngeen jàpp ne mooy li gën tey ci contrat boobu ñeel Sénégal. dañu xalaat ne li gën parce que man waxoon naa ne dootuma wax ci affaire euh, contrat boobu tant que enquêteurs yi pare ñu seen enquête. Hmm. ba livrer résultat yi. Euh, je pense que daje bi ñu ñëw bu ko def tey lundi euh, daje boobu xam naa dana dana am njëriñ parce que lu day nii agent judiciaire de l'État te ñu wóolu nañu seen liggéey ñoom parce que ay magistrats ñoo fa nekk yoo xam ni yu am expérience lañu. Euh, commencé ko ci Antoine Diome ak Antoine Diome ak ñeneen yeneen magistrat yu fa nekk euh, daje boobu xam naa ni daje bi am na élément yoo xam ni ci lañuy ñuy discuter ñoom ñun ñu ngi xaar loolu mm. mais dañuy yaakaar ni bi président waxee nañu arrêté affaire boobu ñu am ay corps de contrôle parce que ñun loolu lañ doon demandé mm. euh, que corps de contrôle yi jóg mais au moment où ñun ñu bëgg saisir corps de contrôle yi ak président de la république moom ci boppam mu def autosaisine corps de contrôle yi am na yu nekk déjà sur le terrain ñun ñu ne soxlaatul ñun ñuy def saisine maanaam di leen di leen di leen bind. Hmm. parce que comme ñoom saisine nañ ci affaire léegi ñun dañuy yaakaar ni euh, président bi mu joxee euh, instruction li ñu waroon njëkk a def mooy ñu pare enquête yi ba situer responsabilité yi xam li nekk dëggantaan ci contrat bi su boobaa. Euh, proposition yu mu waxoon soit ñoo xam dañuy racheter paru euh, Akilee soit dañuy annuler contrat bi ñu bu boobaa la ñuy mën a xam yan solution la ñu war a jël hmm. mais pour le moment ñu ñun yaakaar nañ ni teel na pour que ñu jël yenn décision yi temps wu enquête la ñu nekk hmm. temps wu déglu parti la ñu nekk je pense que agent judiciaire ci loolu lay liggéey mais liggéeyu ñu ci peut-être ay proposition euh, de solution yu mel voilà waaw waxoon nga fi itam nañu audité Sénélec loolu fu mu toll ndax ma ngay dox ba tey. waaw ñun Sénélec depuis plus de dix ans ñu ngi wax ne nañ ko audité. Hmm. audit technique ak audit financier. loolu amoon na am partie parce que en deux mille am na ay cabinets internationaux yoo xam ne dañ leen jëloon pour ñu xool Sénélec bi ñu ko xoolee conclusion yi ñu déposé woon ñoom booba conclusion yoo xam ne dañ ko waroon mettre en œuvre à partir de deux mille muy ñu tas Senelec tas ko ci ñetti entité ba ñeent muy holding bi muy société de production société de transport et de distribution ak société boo xam mooy commercialisé comme ni ñu def ci ndox hmm. loolu la ñu waxoon ba temps yi mu mujj euh, nee nañu conseil d' administration bi joxe woon na autorisation pour ñu mettre en œuvre lool te diggante bi def nañ fi li ñuy wax plan yeesal plan yeesal plan stratégique boobu xam ne deux mille seize ba deux mille vingt plan yeesal boobu waroon na tax ñun population yi ñuy jënd courant entre soixante et quatre vingt francs le kilowatt ci plan yeesal boobu dafa mel ni plan yeesal bi léegi euh, dañ ko teg de côté mais il faut absolument que rapidement ñu édifier ñu ci affaire contrat boobu ak yeneen contrat yi mel ni moom parce que dégg nañ fi beneen contrat ñu commencé nañ ci documentation boo xam ne bi Excelec la bu ñuy wax ay Euh, poto lamp yu jar quatorze millions ñun loolu dañu defee ni ay léeb la parce que warta mën a am hmm. poto ay trois cent mille la mën a jar wala ay ay quatre vingt dix mille wala ay deux cent mille la ñu mel noonu mais pas quatorze millions donc loolu aussi lu ñu war a enquête la ñun daal ñuy xaar résultat enquête mais encore une fois Senelec il faut ñu auditer ko ñoo xam audit financière surtout audit financière hmm. mais contrat yi nga xam ne ñu ngi koy dénoncer syndicalistes yi nekk foofu di ko dénoncer contrat yooyu war nañ ko teg sur la table ñu audité ko hmm. ñun loolu la ñuy demandé ñun askan wi parce que milliards yu bare yooyu di jaar foofu yëpp ci kaw askan wi lañ koy xëpp ci tarif yi lañ koy répercuter ñun ñii ñoo koy fay ñun askan mhm. alors maître euh, ñu wax ci leneen loo xam ne itam yëngal na réew mi muy mbirum suuf euh, surtout euh, suuf si nekk ci booru géej gi ñu naan ko littoral jamono yi dégg nañu ci ay mbir yu bari yu ci jóg yow noo jàngate mbirum suuf si. waaw affaire littoral littoral bi ñun yàgg nañ ci taxaw parce que ñun ci perle lañ bokk maanaam ñi nga xam ñooy xeex pour protéger littoral bi ci lañ bokk depuis des années. Euh, ñu ciy félicité ñi nga xam ne ñoo ñoo nekk euh, au premier plan muy euh, Goudiaby Atepa muy Mokhtar Ba ainsi de suite ak yeneen donc xeex boobu xeex bu légitime la parce que mënuloo nekk ci réew li nga xam ni mooy bor de mer littoral bi yëpp boo jëlee tali corniche bi jógee mosquée de la divinité di wàcc mel ni ku jëm Dakar ay mur ay mur dong ngay gis sax géej gi te yow da nga amoon droit pour am vue sur la mer géej gi doo ko gis ay mur la ñu privatiser ko nga wàcc ci géej gi ñu ngi toj falaise bi yëpp di ko jox ay privé ay personnes yoo xam ne ñu am mérite yow amul ci benn réew boo demee Maroc par exemple nga dem Rabat nga gis marina bi niñ ko organiser amul benn benn benn tabax bu nekk foofu amul benn tabax lu fa nekk mooy suuf ak plage ak quelques aménagements ay toilettes ay kii xam ne même guddi ay poto lamp yu leer même guddi famille yëpp dañ fay wàcc nit ñi ak seen famille ñuy doxantu ci booru géej gi di noyyi euh, air bu air bu baax ci seen santé di détendre ainsi de suite ñu xañ ko Sénégalais yi xañ leen ko jox ko ay privé yoo xam ni léegi ñoom seen bopp sax dañuy privatiser plage yi teg fa seen i xaj ak seen i gardien xam ne kenn mënu fa jaar. loolu fan la jaadu loolu même bu fekkee am na ay acte administratif yu leen ko attribué acte administratif yooyu dañ ko war a remettre en cause dañ ko war a annuler delloo plage yi ñu delloo ko askan wi parce que askan wi ñoo ko moom donc ñun gën nañ ni tôt ou dina am li ñuy wax loi loi de réappropriation maanaam loi boo xam ne bii comme ci yenn réew yi nam fa amee yoo xam dañuy nanguwaat propriété privée yooyu jox ko askan wi hmm. en tout cas Sénégal ñun parce que gënuñ ñu am droit ci géej gi. Hmm. comment se fait-il que parce que occupé nañ yenn position yi ñu jox leen géej gi ñoom ñu moomal ko seen bopp tabax fa seen i kër di fa noyyi seen air pur ñun askan wi ñun baadoolo yi amuñu droit sax wàccati ci plage bi parce que teg nañ fa seen i xaj ak seen i seen i gardien def fa seen i mur loolu dañuy ñaan état bi mu dellu si ginnaaw ci loolu. ñoo ko fi defoon nañ ko dund. fii ak booba yéen waaw def ngeen plainte waa Perle euh, ci euh, état bu Sénégal euh, lan ngeen di xaar ci boobu les plainte ñu ubbi enquête wala ñu nanguwaat yee ñu joxe woon wala lan ngeen di xaar. ñu def enquête ba identifier ñi nga xam ne ñoom ñoo occupé foofu ñoom ñoom ñoom la ñu jox ñu occupé foofu loolu il faut enquête bi leeral ko ñu rendre ko public parce que population yi dañu am droit xam dañu am droit xam ñan la ñu jox. suufu géej loolu gëm nañ ni DSCOS mën na ci liggéey lu rëy parce que DSCOS euh, kii la boo xam ne bi direction la boo xam ne bi gis nañu déjà liggéey bi muy def mais mën nañ ko gën a dooleel pour que liggéey bi gën a yokk parce que contrôle de l'occupation du sol c'est extrêmement important euh, ñu ngi leen di encourager ñoom waa DSCOS di wax ni nañuy yokk seeni moyen te yeneen corps de contrôle yi nañuy jël affaire bi euh, par exemple au niveau des impôts euh, l'inspection générale d'État ou bien l'inspection financière war nañu mën a xam attribution yooyu naka la def parce que au-delà des attributions am na ñoo xam ni dañuy tabax gaawantu tabax pour mettre l'État devant le fait accompli ñi ngi tabax guddi ak bëccëg je dis bien guddi ak bëccëg di yokk seen occupation di gën a yore euh, géej di wut ay décisions administratives même buñ ko amoon ñun am nañ ci déjà un début de documentation ñun am nañ ci déjà ay documents yo leer yoo xam ni am na nañu occupé euh, suufu géej gi yoo xam ni occupation yu illégale la ñoo xam ni sax na ñu ay lettres yuy jóge ci autorités yi ni leen ñu arrêté mais arrêté wu ñu dañ doon continuer donc loolu yëpp il faut ñu leeral ko te ñun dañu bokk ci liggéey boobu. ñu ñëw maître ci mbas mi nga xam ni euh, Sénégal a koy dund am na léegi ñetti weer ak lu teg seetlu nañu ne nag euh, wàllante bi fi mu ne mi ngi gën di law doonte ñiy wér itam takku nañu loolu ban jàngat nga def tey ci tolluwaayu mbas mi. waaw mbas mi danger bi ñëpp xam nañ ne danger bi mi ngi fi parce que chaque jour euh, ministère de la santé bu ñu defee seen communiqué dañuy gis ni yëf yi mi ngi il est vrai que am na ñu te loolu ci échantillon bi ministère bi jël rek la ça ne veut pas dire que euh, ëppul loolu war na ëpp loolu d'ailleurs parce que bu fekkee ni dañuy def ay prélèvement di wóor mooy bu ñu defoon deux mille trois mille cinq mille prélèvement cas yi dana yokk te li gën a graaw mooy nit ñi euh, mesures yi ñu leen wax respecté wuñ ko loolu moo gën a grave parce que population bi dafa mel ni ñoom euh, yëguñu ni feebar bi am na wala buñ ko yëgee ñoom Euh, ragaluñu feebar bi ragaluñu mu dal leen et jëluñu benn mesure pour non seulement mu dal leen mais wàllaate bi boo jëlee problème mu masque bi masque bi dafa am ñoo xam ne ñu faaleetuñu ko te nit bu amee inconscience bañ a respecté loi bi yi mu wax na ngeen di dekk ay masque di respecté euh, distance yeeg yu mel noonu ku ko deful dañ la war a jàpp amende la waxuñu ay amende deux mille francs wala trois mille francs dañu wax na amende am doole ba nga xam ne kenn dootul am envie def ko bu la noon amaan dix mille francs wala quinze mille francs wala trente mille francs xam ne xaalis boobu dañ koy jël def ko ci keesu Covid dix neuf léegi tey ñëpp di takk masque ba di ko takkal seen i xaj ak seen muus donc nañu appliquer loi bi avec sévérité parce que askan bi bu ñu leen bàyyee seen seen teyaayu bopp rek euh, euh, dafa mel ni ñoom yëgaluñu affaire bi seen yaram te loolu dafay tax feebar bi gën a law. feebar bi am na foo xam bu fa tollee mënatuñ ci dara bu siba lay doon. Hmm. donc nañ ci jóg bi jóg jotee. da nga yaakaar ne kon war nañu gën a xëy na diisal daan yi ñeel ñi euh, baña a sàmmonte ak geste barrière. ah bu baax baax dañ ko war a diisal bu baax a baax a baax. comme état d'urgence la nekk dañuy wax police ak gendarmerie ak armée ñëpp ku ñu gis takkoo masque nañ leen jàpp fay loola amaan dix mille francs wala lu ko ëpp ku ko fay benn yoon ñaari yoon dootoo ba ilaa yow mi di nii donc loolu la mais tant que ñu ngi wax ay pes da gis dañuy romb alkaati yi def ci kër xamul mais du ñu takk masque bugguñu takk masque dañ koy yore seen poche ne nañ def leen di étouffé wala ño dañu gën ñuy takk masque ah loolu jaadu la loolu moo tax nit ñi gën a am fit am na temps yi passé ñu bàyyi presque ñëpp dañ daan takk masque mais léegi bàyyi nañ ko bi ñu defee assouplissement bi hmm. donc assouplissement boobu bu fekkee dafay entraîner nit ñi bañ a jël ay mesures hmm. bàyyeeku bañ a teg ay masque bañ a respecté distance di di di fenkaloo di def ay accolade sax ñu ngi koy gis ci mbedd mi loolu wàllent bi rek lay yokk bu fekkee loolu dafa am état bi dafa war a tiisalaat affaire même bu fekkee dafa war a jëlaat mesures yi mu jëlaat ko dafa war pour protéger askan hmm. mais tant que ñu ngi bàyyi nit ñi ci lu leen neex boo demee ci plage yi sa yaram day taw liñ daan fa fees tell hmm. liñ daan def yëpp ñu ngi koy def waaw fan lañ jëm fan la askan wi jëm. ak kaa yeeg importé yi dellu si dolleeku ci. ak kaa importé yi dellu si. jóge aéroport loolu aussi war nañ ci wax. Hmm. jërëjëf maître Massokhna Kane euh, njiital SOS consommateur amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi tey ñu ngi lay sant di la gërëm maître. maa ngi leen di sant yéen di leen gërëm di leen ñaanal. Hmm. merci beaucoup.